moom dong moom jëmmam moo tax suñu borom bind lépp lu mu bind xanaa kon ci tax suñu borom bind jaam ñépp dara jaam ëppante naag noonam yi nga xam ne mosuñoo jëf dara lu ko soob lu ko neex mosuñoo sàkku yërmandeem mosuñu ko nangoo ak nguuram mosuñu ko jaamu xanaa man di mu nekk ci diggante boobu fi la gënal leen te war a fa la mën a yem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn nit ci sama xeet bi dana ramb yomal xiyaam lu toll gir rabi ata gépp ak gir mu mular gépp manam lu toll wala wolof yëpp ak tukulóor yëpp kenn ni dana len ramb yomal xiyaam nee ñu law kustu sirul wali la ubida waxon na tank ne waxuma ko bul khawsu wali ci bop rek la ne ku ne du wali la moy saxal nga ne xaritu yàlla la saxal nga ne aji texe yomal xiyam taxal nga ne borom nit bu rafet la kon wilaya ci boppam ko yàlla jox jox na la lu rëy waaye nag awliyaaw yépp ay martaba la ñu amee martaba yoo xam ne dafa wuute ni nit ñi ëppantee wërsëg ni ñu ëppantee ay fan ni ñu ëppantee daraja ndax ki nga xam ne mooy doon njiit li nga xam ne ruuxu def yépp ci lay nekk nga xam ne xeli picc yi ngi mu tiim nga xam ne wund du rey janax ñëpp lu dul ci ndigalam buñ ko waxee ku ko xamul dafay daal di defe ne dañ ko bëgg a jaawaleeg loolu du dara ci yàlla am na ci awliyaaw ku ne bu la suñu borom joxoon yaqin ba mu jeex bu la suñu borom mayoon nga ram mu jaam ñëpp ku ku ku gëm ak ku gëmul yëpp it daanaka ko seetee ci yàlla li mu amee joxu la dara من يالا دا فا بري لا تياتو كون بو سن توبا ني خزائن ربي فتحت لي وزهزهت لغير الاذى الدنيا واخرى وبرتخو دا ني نيب نيب نانا مانغا سيني بروم سن بروم اوبين نكو كو تا ادنا الاخره برتخ سورل نكو لور كون بوكي جولي دي بوكي طالب دي ني ما جيدال ناخ fi ma nekk maa ngi niir te sama dama waxtaan wi gàtt na bëggoon naa wéy ba du set wala mu jege lool waaye nag ci mu ne daal ba tey loolu ma tawatoon ci colloque bi ba léegi moo ne ci man yi ñu bëggoon wax yëpp na ma ko bëggoon waxee mënu ma ko ko waxee li bëggoon wax yëpp it ah matul ngeen jéggal ma kon rek bu tàll ñaan yàlla na suñu borom def dëgg dëgg dëgg taalibe yàlla na nu suñu borom def nu bokk ca way xett li ku ñuy xett li ji ëllëg yàlla na suñu borom boole ci borom daraja yi ëllëg yàlla na nu fegal népp ndox yàlla na nu won aw woonam yàlla na nu booleeg ay soppeem yàlla na defal mujj bu rafet yàlla na neexal suñu àddina ak suñu alaxira te xiir nu ci boppam lépp lu ñu yàqal yàlla na nu suñu borom féewale moom bépp julit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 ربنا فصلنا ذنوبنا وكفرنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم يا من ليس بعيد فنناديه ولا بغافل فننبهه ولا بناس فنذكره ولا بنعيم فنوقظه لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجدنا في مقامنا هذا ذنبا الا خفرته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجه من هواه الدنيا والاخره الا قضيتها ولا عبد إلا أهلكته فإنك تقضي لا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات والله طول لنا عمرنا صحح لنا عمرنا هدى الرشد والتوفيق يا الله ودمر كل اعداء بذنوبنا قبل رسولنا يا الله يا من على كل شيء قادر ما عرش العظيم من قهر يا الله اني سالتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا في الله وتوبة قبلت مع مدنة وفئة زوجه صلت بدين الله وكمل كل ما ننهو ونحسب لنا كل ما نختار يا الله ورب لنا كل ذي سعد وذي حرم ويسرا كل ذي تأثير يا الله واسلك بنا نهج رشد واقتنا زلدا واطلق من والشيطان يا الله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 وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبينا على صلى الله عليه وسلم jërëjëf Mbaye jërëjëf yal na yàlla yàggal sa taxawaay